Daouda Diallo brise l'équilibre ethnique euh, titre boobu bu ko l'observa bu ko Walfadjri bindoon euh, nga defee ni euh, simple démenti dina ko ci génne lii c'est absolument lii c'est deux fois plus grave c'est gravissime et pourtant dañ ko fenetal jàll dem ci leneen Pape Ndiaye il a dit moins grave que ça il n'a rien dit de grave sax d'ailleurs te pourtant mi ngi ci kaso bi non journaliste yooyu sax mën ñu bind loolu ah, pour man y a pas de souci ah hmm. dafa am kay ñu bind ko ah. <laughs> Ah, jërul coow lu bëri. ah waaw <laughs> de toutes les façons luñ mun nañu wax ne bu doon Walf kay ñu tëj ñu mais journal boobu moom mun na. mun mun nañ bind leen ne mais na tegu ci dëgg rek. Mhm. na mhm. ci dëgg rek. la l' affaire Sud FM c' était Ramadan 2005. 2005 d' accord question bi euh, Mame Birame mooy que tey euh, Moustapha mi ngi koy wax léegi ci euh, ci ay kàddoom est ce que. presse bi euh, bu leen nguur gi yabee di jël ay journalistes di tëj ak di xoqatal ak di intimider est-ce que du aussi euh, presse bi moom moo divisé wu ba euh, ku ñëw rek bëgg leen yàpp bëgg dugg seen caaya. xam nga question bi ma posé sànq di naan est-ce que jamono jooju GFM am na. wala amul man maa gën a xam réponse bi. Mhm. mais maa ko posé exprès mhm. <laughs> parce que ñun presse bi bi ñu si nekkee ñun rek ñi nga xamante ne nii maanaam dañu gëm journalisme dañu jàpp ne dëkk bii nii. Euh, euh, nu mu durati pluralisme moo fi war a am. Mhm. maanaam kaddu du jóge fii kaddu du jóge fële sii di da doon wax ne euh, bi muy créer créé Walf Quotidien c'était pour bu soleil waxee yi gouvernement bi di def Walf Quotidien wane li. gouvernement bi def population yi di ñaxtu. Mhm. ma li gouvernement bi defu mhm. comprendre mais bu ñu demee ba nga xamante ni ay nit ay homme d'affaires. ñoo jóg jàpp ne secteur bii kat secteur bu mën a génnee xaalis la. ñu investir si di xaar ay retombées ñooñu mënuñoo am même taxawaay bi ak koo xamante ne ni dafa créer ab journal parce que ngëm-ngëm la ci am parce que dafa jàpp ne équilibre war na am parce que dafa jàpp ne askan wi war nañ leen dégg. comme Babacar Touré Oumar Oumar Ndiaye. Moulay Bamba Diallo c'est pas la même chose. du benn motivation yi du benn. Mhm. ñooñu li leen taxoon a jóg mooy dañu jàpp ne kat. Sénégal du Dakar rek Sénégal nekkul rek li ñuy wax muy jóge ci conseil des ministres wala ci membre gouvernement bi. Sénégal ñi nga xamante ni ñu ngi au fin fond ci la ñu bokk te li ñuy wax am na solo ñëpp dañ ko war a dégg mais ñooñu buñ ci gañee xaalis baax na suñ si gañewul xaalis baax na parce que seen objectif du xaalis. Mhm. mais yow nga ñëw teg groupe de presse ne man kat sama objectif mooy. secteur bii nii mën naa ci en tant que business man gagner de l'argent mhm. mais kooku munoo fexe fexe fexe ba am taxawaay ak keneen ki nga xamante ni moom laa wax léegi mhm. li leen si dugal moo bokkul. journalisme Sénégal nag loolu pratiquement moo ci gën a bëri gis nga journaux yii ma lay wax na yu si bëri dañ koo créé ci bu yàggul dara yu bëri ñi si si seen ginnaaw amuñu lenn lu jege journalisme. Mm-hmm. ay homme d'affaires lañ wala ñu gis ne kat lii nii mën na leen a permettre ñu am moyen de pression. buy tax bu ñu xëppee fii kaanu ñu jox leen xaalis fii ñu créé seen journal. ay groupe de pression. ay groupe de pression léegi bu boobaa. ki nga xamante ni dafa créer ab journal wala ab groupe de presse pour am ci xaalis. kooku xam nga ne du lijjanti ndax reporter bi il est dans de très bon conditions day lijjanti ne moom lu muy moyen def ay dépenses. muy gën a yokk chiffre d'affaires am. Mhm. kooku seetul condition journaliste bi seetul ndax ni mu koy defee baax na ba pare di contrôler tamit en même temps li nga xamante ni journal bi journaliste bi mu ngi koy wax wala mu ngi koy waaj a wax parce que moom am na ay intérêt yoo xamante ne nii. journal bi daf ko war a sauvegarder su ko mënul bu ko mënul fexe ba fructifier fructifier ko problème boobu moo am Sénégal. Mhm. tey jii mhm. nii ñoo xamante ne nii amuñu benn conviction par rapport ak euh, affaire journalisme ñoo xamante ne nii amuñu benn euh, euh, rapport ak métier journalisme bi tey ñooñu la ñuy wooyee la plupart du temps ay patron de presse ñoo téye journalisme. pourtant maam Birame cette même réalité là bi ngay bi ngay wax au Sénégal. Mhm. am na en France. Mm. parce que France les les grands groupes de de presse ay hommes d'affaires ñoo ko moom à la seule différence mm. et c'est important mm-hmm. à la seule différence que France journalistes yi ils sont tellement protégés mm. dañoo am doole ak booloo goo xam ne patron de presse yi mën na mel nu ko neex mën na am doole ju ko neex mais il n'osera jamais de la vie mm-hmm. ñëw naan maam biram lii ngay wax wala lii ngay bind wala maam biram bind dara mu topp ko ci ba koy dàq mm-hmm. su ko defee ça ñun ak France yow da ngay gis des organes yoo xamante ni dañ koy créer mu lenn leen ñii nii droite lañ gën a féete. Mhm. assumer ko nag. oui assumer ko xam nga li garaaw Sénégal mooy que. Mhm. nit ñi du ñu assumer. maanaam yow soo jëlee sa ligne éditoriale ne c'est la voix de sans voix. Mhm. assumer ko nit ñi dinañu xam ne. yow kat ñi ñuy xaar pour dégg leen ci sa organe boobu ci sa groupe boobu mooy ñi nga xamante ni dañoo néew doole loolu loolu assumer nga ko. mais yow nga bëgg a ñëw ne da ngay def information générale. ba pare lii la gën a soxal mooy loo xamante ni day suuxal opposant di defaral le pouvoir mais bu boobaa on ne peut plus parler d'information on parle de communication et c'est mmh. très différent mmh. communication ak information du benn leneen li nga xamante ni démb <laughs> ay journalistes ñëw di ma euh, poser ay questions ne ma euh, lan nga xalaat ci journalisme d'investigation au Sénégal nangam sangam di wax seen wax may leen journalisme d'investigation boo déggee Sénégal ñu koy wax di ci focaliser wu c'est parce que Sénégal dañoo tàmm li ñuy tuddee compte rendu. journalisme de compte rendu. ma ma boo tax boo ñëwee di def leneen lu dul compte rendu ñu jàpp ne investigation ngay def alors que journalisme ak investigation kenn mënu ko tàggale boo investigué wul mënoo def. journalisme mënoo informer mhm. waaw. Mhm. boo investigué wul mënoo def journalisme c'est parce que dañoo tàmm fii liggéeyu Lantinoor Lantinoor mooy diw wax na. la mu wax xooloo ndax dëgg la walu dëgg nga ñëw plaqué ko ne sénégalais yi nga jottali Youssou Ndour way na ko dee jottali Youssou Ndour way na ko dee <laughs> waaw ma ngoog <laughs> li liñ ko wax rek lay nettali <laughs> waaw waru cee yokk waru ci wàññi très bien te xam nga souvent dama ciy discuter ak Seydou Diop ma ne ko xam nga euh, euh, tey euh, niñ daan defee journalisme au Sénégal fi mu ne nii mënatuñ continuer di ko def parce que ceci ba ñu koy créer ceci ba ñu koy créer c'est pour former des journalistes yoo xamante ni ñu génnee ci public bi lañ jëm. ci médias détaillés yi. très bien APS. inauguration visite inauguration visite. mais ñooñu bu ñu leen di jàngal métier. munul bokk ak ki nga xamante ni mu ngi jàng métier am ambition dem liggéeyi Walfadjri. c'est vrai parce que kooku munul jottali communication gouvernementale. munul rek très bien la différence aussi simple que ça. c'est bien dit d'accord d'accord alors Georges Nessa ñu terminer ci euh, sujet bi euh, vraiment euh, tey comme journée de la presse te yaakaar naa ni sax benn une heure de temps bi du si doy pour ñu waxtaan ci mots yi nga xamante ni dañ ko gis ci presse ñu ngi koy wax sànq ba tey mooy que am na ay quotidiens quotidien yu bees euh, pratiquement chaque mois euh, benn quotidien bu bees génn du ñu xam ku ne ci ginnaaw wala souvent sax nga xam ku ne ci ginnaaw est-ce que du aussi loolu moom mooy gën a tax ba euh, presse bi di gën a fragiliser wu ku jug rek ni yow patron de presse nga yore sa benn torchon entre guillemets bu ñuy tuddee papier. waaw mais loo loolu c'est c'est quand même une vieille pratique. en tout cas depuis mën naa wax ne dans les années 2000. si avènement Ablaye Wade. soppi. si la si bëri non Sopi yàgg na Sopi c' est bien avant les années 2000. Sopi est-ce que c'est pas le premier quotidien privé du Sénégal moom lañ njëkk a jaayee fii 100 si mhm. journal fii Sénégal. mais en tout cas si dans les années. maître Khoureyssi Ba a été directeur de publication de Sopi ah. comme comme ah comme Jean comme Jean comme Jean Paul Diaz comme Ousmane Ngom. oui comme Fara Ndiaye. voilà mais léegi xam nga euh, li ñu daan gis du temps du du temps du parti socialiste temps Abdou Diouf Abdou Diouf avait son journal qui le débat c'était les temps boobu je crois l'ancien ministre Diégane Sène le journal des intellos voilà mais avec Abdoulaye Wade nag bi ay mille 2002 2003 nga gis nag bi élection jotee wala élection législative local wala présidentielle nga gis ay journaux yu bëri yu bees ñu génn te loolu di nga koy di nga koy gis euh, temps yi ah d'ailleurs ça ça a commencé gis nga ay journaux yu bees yu commencé mm-hmm. ñoo xam ne élection rek la ñuy xaar rien que pour capter wala bu ñu nee aide à la presse léegi ñu gën a gis ay titres yu bees yu génn. pour capter l'aide à la presse. maanaam da ngay xaar ñu ne nguur ga de joxe na un mille jox na presse ah am quinze que li jënte la rek boo jegee nguur gi moom di nga jot sa quinze milliards. parfois sax parfois sax bu ñu joxee Walf fu ñu joxee Walf di vingt millions jox la vingt millions. parce que ñu koy partager aussi bon ils sont bien placés mais ñooñu xam nga da ngay xëy doo xam sax directeur publication bi doo ko moos a dégg doo boo laaj toon biir Sénégal yëpp kan moo ko xam ne ko kenn xamu ko c'est au fait d'arme c'est li tubaab dax au fait d'arme mënoo ko cité benn. am na nu ko série de xalaat son pédigree quoi pédigree. dara. yaa ngi may dégg benn article bu mu mos a bind dans la presse doo ko mos gis nga ne mu ne la directeur publication. c'est pas possible. te loolu dañu ne normalement danga war a def dix ans d'exercice. pour dix ans d'existence avant dix ans de métier avant nga Biram muy muy Maam Biram muy Georges muy man mii. Mhm. ñun bu ñu neexee ñu ne. boo boo demee euh, euh, journal Le Populaire. oui maam Birame ne la euh, boo demee Walfadjri wala feneen remontel jusqu'en 2000 man Mandela la la boo demee journal Le Matin. Mhm. remont wala Trac wala yenn wala non Frasque wala yeneen ak yeneen tu trouveras des articles de Georges Nesta Diop. Mhm. donc que Georges soit directeur de publication ça n'étonne personne. Mhm. mais da ngay gis un directeur de publication bu mës a bind ci journal. <laughs> parce que Serigne Touba du ay caaxaan. <laughs> directeur de publication bu mës a ci te eh, te am na fii Sénégal. Eh, fii ci Sénégal eh, en tout doy na waa bu baax a baax suñu xel yëpp delluwaat ci Thioro Maxu Mandela Pape Ndiaye ak ki nga xamante ni mooy Babacar Touré di leen ñaanal yàlla rek natt bi nga xamante ne teg leen ko yàlla teggi ko.